nee naa la baax na loolu daw leen gaaw jënd ji ko ci mi ngi ci biir marché yi rawatina li nga xamante ne bii mooy jamono tabaski te boo ko naanee da ngay daal di digérer vite fait te li ci gën a neex dafa am énergie bu baax a baax am na king cola am na king ananas am na li nga xamante ne mooy king orange am na aussi tamit li nga xamante ne bii mooy king citron kon daw leen gaaw xale mag ndaw ñëpp ko mën a jël nee naa la li ci gën a neex nag tarkal euh, dañoo nekk ci li nga xamante ne bii mooy jamono tabaski tuur yeeg ngénte yeeg natt yeeg yëpp daw leen gaaw boo amee gan moo ci gën a gaaw ndaxte gis nga bouteille bi macha allah njaboot gi yëpp mun nañ cee naan te du daal di jeex di ko jaajëfal bu baax a baax moom king mos mosaat waaye damay daal di dugg ci li nga xamante ne bii nag mooy sama gaam bi muy belleer macha allah nee ko ba tey moom tamit fi mu ñëwee dafa baax ndax te xam ne buñ nee jamono tabaski dañ naan sëcc dafay faral di bëri waaye parfum yi ku mu gunge sa kër tarkal la boo leen taalee ba pare rek da ngeen di daal di kër gi mu daal xeeñ bi ne a jóg xale na koo jël mag mun na koo jël te ay xeet fruit neex lañ ko defare defaree macha allah daw leen jënd ji ko mi ngi ci marché yi ba tey yemul foofu. sama gamme spring bu yànj boobu nga xam ne am na li nga xamante ne mooy savon bi am ay gel yoo xamante ne bii man euh, dama ne macha allah moo ci gën a gaaw ndaxte ku nekk xam na ne euh, troisième vague bi dafa dugg si te li nga xamante ne bii mooy gel bi boo ko jëlee dina déterger say loxo ba benn microbe dootu ci nekkati savon yi noonu boo ko sangoo feex picc ak tache lu mu fekk sa yaram da koy daal di génnee kon daw leen gaaw ngeen jënd ji ko euh, mi ngi ci marché yi waaye damay jaajëfal bu baax a baax Abou Mouhamed sama sponsor yi yànj yi ndax peccum liir bu neexee jaay jàpp ca mbagg ya boo leen di am émission bii di bëggee di reetaan grâce à sama sponsor yanji di leen bàyyi ak Abou Mouhamed mu wéyale mu woyee wéyale waaye comme ni mu ko waxee sànq rek di ñaanal ñi nga xamante ne bii ñu ngi julli tey julli bi yàlla bu mu nekk seen mujjantalu julli yàlla ñu fekkee at yu bëree bëri ñun ñu des nag di xaar bu subaak jàmm ak salaam ba tey ñu julli at yu baree bëri abu Mouhamed ma daal di lay bàyyi nga daal di wéyal li nga xamante ne mooy programme bi te naan bu kenn zappe spécial ndewenal la tey xanaa kan moo la ñawal maa ñawal sama bopp baareegu ma sañ ngaa da ngaa yabaate de sañ ngaa fay joxe ni ay ñaw. baar te tey suba fu kan fi mën a ñawal. ba tey baaree ko li ngay wax tamit bàyyi li ngay def waaye ah tamit dafa am tamit c'est trop tamit wàññil <laughs> li Youssou Ndour tamit <laughs> lu ne nga ne mën nga ko moom mënoo ko moom. ku joxe ñëw tey suba nga livré ko wàññil <laughs> mbokk yi am mbégte ak contentement bu mag di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi euh, sous l'égide de tous les xalifes bu ñu sante yàlla suñu borom bi nga xam su luy njabootu yonte yàlla borom xel mu di ziar tamit njabootu Cheikh Omar Foutiou Tall Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général kulu murid ñu ngi di ko ñaanal fan général des Tidianes yal ko yàlla may Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général day Baye Fall Serigne Pape Mahi Niass xalif bu Medina Baye yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Mame Abdoulaye Thiaw Laye day laay yàlla yàlla gudd fanam Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass Salewana Niassène yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram Imam Cheikh Cissé ci Medina Baye yàlla yàlla gudd fanam di Yeni ak doom ji Cheikh Omar ñu ko ziar njabootu Serigne Muniru Jigéen xalifa Serigne Amadou Bara Mouhamed Lamine Ngom ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass Serigne Youssoufa Mbaye xalif maam Cheikh Mbaye ca Louga Serigne Mansour Cissé ca Pire maam Abdou Dramé xalif bu Ndande ñu koy ziare alaaji maam Modou Cissé xalif bu jaamal cerno madani taal xalif cerno Mountaga taal njabootu Cheikh Moussa Kabara Cheikh Moussa Cissé njambe borom daaru cerno Abdourahmane Bari waliyu kaamin bu nekk ca Bogol sama baay Serigne Abo Mbacke Falilu yal yàlla guddal fanam may ko fan bu gudd ak wér gu yaram yàlla may ko euh, mu yàgg fi lool te yàgg ñoo euh, euh, jiite ci ci li nga xam ne nag moom mooy xalifu sëñ Fallou Mbacke yàlla fi yàgg te wér di ziare tamit sëñ Fallou Mbacke docteur docteur ko ñaanal fan bu gudd ak ko ci nuyoo mu joxal ko sëñ Fallou Mbacke docteur cerno walla yaaɓe bo Fouta Thierno Sama Samouraɓe yal na yàlla gudd fanam imam Fansou Bodian xalif général de la communauté Joola ñu ngi koy ziar góor gi Samba Ndiaye représentant ngi koy ziar yal na yàlla gudd fanam Serigne Ibrahima Khoudia Mbacké xalifu Serigne Mudumba Xabaan borom baatin yàlla ko yàlla may fan bu gudd góor yaram di jooy suñu papa Thierno Bokar Alpha Ba ca war a nekkoon fa yàlla ko yàlla xippiloo ci àjjana yi a kawe Thierno Mamadou Hadama Gaye ci Mbour Tefes Serigne waaye may jooy sama baay ba nga xam ne mooy Cerno Hamdu Raabi Njàcc nekk ci Medina Njàcc yàlla yàlla def mu xëppee ci àjjana kawe sëriñ Mama Sugu waa daan ziar nañ ko alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy sëñ Abdou Karim Mbacke mi nga xam ne nag moom moo nekk ci Ndindi yal ko yàlla defal jàmm ak Moudou Fleur ca kër ga cardinal Théodore Adrien mooy seigneur Benjamin Ndiaye abbé mboolem chrétien boo xam ne yaa ci réew ak suñu yaayi tedd yal ko yalla may fan bu gudd a gudd yaram sëñ Mansour Sarr dundal sa dund am na njëriñ moom ñu dénk sama yaay Adja Kine Si Adja Kine Si nag doom la ci sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum bi ñuy jooy ba tey di noppi guñu yal na yàlla def mu xippee ci àjjana gën a kawe waaye happy birthday to you so ay anniversaire sama papa sama xarit sëñ Mansour euh, Sarr ba nekk ci buddi sëriñ Babacar Abdoul Aziz si ca Tiwaawan alaaji tafsir saaxo ilimaan suñu bàyyi la waxtu bi daana toog dañu seetaan di a kawe ñu ngi di ziar sama papa ju baax euh, la woon ca jamonoy am euh, euh, def mu xippee ca àjjana ya gën a kawe njabatu Daaro Rilwan ala njabatu alaaji Basiru Touré ca Daaro Rilwan ci Medina Salaam njabatu sëriñ Xayru Touré sëriñ Serigne Mansour Ndiaye Baye Fallou Serigne Fallou Touré na ko yàlla defal jàmm waaye ziar nañ tamit sama baay bopp di Chérif Abdoul Moutalib Tidiane sët la ci Ahmed Tidiane nekk ca Pikine Serigne Hadi Cissé Touré ca Fass Touré Serigne Mouhamadou Moustapha Sow Waliou Dagana yal ko yàlla defal jàmm Alaaji Mouhamadou Aïssata xalif général bu Ardo yal na yàlla fanam Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye xalif bu Luubu du Kër Momar ko yàlla may fan kaamil la ma nga dëkk ca warasoo gi alaaji Mansour Mbay ko yàlla defal jàmm xalifu Amadou may euh, euh, ah, xalifu alaaji Ahmadou Mbay Mawro alaaji Mansour Mbay yàlla ko yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak yaram mbokk yi ñu ngi jaale suñu xarit bu ñu naan Mansour Gueye ingénieur de son nekk fii ci tele bi waajuram bu góor Alaaji kër Gueye nekkoon agent bu RTS moo dëddu àdduna ñun ñëpp nag ci équipe Kouthia Show dale ko ci réalisateur technicien ak ñu nekk ci maanaam di ànd ak moom di liggéey yëpp yëpp yëpp ñu ngi ànd ci sama tur di ko yóbbul suñu njaal di ko jaale ndax Mansour wax dëgg yàlla nit ku maanu la ku teey la koo xam ne kenn yéenewu ko tiis bi nga xam ne mu wàcc ñun suñu waajur bu góor ba nga xam ne moo génn àdduna wax dëgg yàlla moom tamit témoignage bu mag la am ca RTS ndax liggéey na fa ba retraité te déggu fa lu ñaaw jëfu fa lu ñaaw na euh, bàyyi ja mel moom la doom ji mel Mansour tamit nit ku teey la yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd may ko wér tamit te saraxam yàgg ci loxom ñuy ànd ak moom nag tiis boobu di ko partagé ak moom ndax wax dëgg yàlla bokk na ci techniciens yi nga xam ne dañuy laale ak Kouthia te ba fi nekkee ba tey musul def lu ñaaw Mansour jàpp na ñaamburam bëgg na liggéeyam fonk na liggéeyam yal na ko yàlla sagal yal na ko yàlla may xol bu mu muñee suñu waajur bu góor bii génn àdduna ndax ñun ñëpp ñu ngi ànd ak moom ci tiis bi te moment bi mu ko dalee nag mu nekk moment bu doy waar ndax wax dëgg yàlla dañuy ànd moom tamit di méttitlu waaye di ñaanal waajuram bu góor yal na xippee ci àjjana gën a kawe te moom tamit ñu ñaanal ko mu sut ay ati ati ati ati waajuram bii yàlla bàyyi ko fi bi mu yàgg fi lool ba taxaw taxawaayu baayam bi nga xam ne dama ma taxawee ci kër ga Mansour ñu ngi lay ànd ak yow ci tiis di la jaale waaye di la masawu ti bokk yow tiis bi tamit yal yàlla defal jàmm may la fan bu gudd ak wér-gu-yaram yaag sa njaboot ak sa say waajur yëpp yàlla defal leen jàmm mbokk yi euh, kii may invité nii sama xarit la dana ñëw ci Ablaye Wade mais dama ko bëgg dugal ba pare ñu jaaree noonu ci Ablaye Wade kii nañuy wax Papa Ndiaye nag kër gi bokk na ci ñu ko sanc ndax yàgg gi mu yàgg ak Ngóone Nduur ak Ibu Nduur ca joolool nit ku am nit ku am yitte ngi nii nit koo xam ne bu jàppee du bàyyi ku fidèle ngi nii am na xew-xew bu mu amal Papa Kaay ndeysaan ku baax nga ni Ndiaye Diatta na nga def nangu nañ ziar bi yal sa jàmm yàgg Pape da nga ma wax ne ma da nga am benn soirée booy def soirée du Sine waaw dañu organiser le bal du Sine la ci ah, ah, ah, du Sine kay jaan wàcc na dafa am coïncidence waaw euh, Sine ak Samba Sine waaw te yow ku ne xam ne am nga ay mbokk sa cosaan am na ci Fatick ma ne sama cosaan sax Sine dinaa expliquer la tax moo indi Sine boobu loolu après ci biir la maa yow hors hors antenne mhm. moo tax nag bi jàppee bis bi le bal du Sine

Euh, cassette war a CD moo ko photo pap bii ànd na Youssou Ndour ànd na Ngoné ànd bu rafet ànd ak Ibou Ndour ànd bu rafet këram gii këram la Pape bés boobu da nga ko sargalee képp kuy doomu Sine de. ah bis bi nag Sine la ñu wax. waaw ku ne ku wax Sine xam ne Sine dafa yaatu. dafa yaatu moo tax dañ ciy woo euh, suñu maire. ndeysaan monsieur Matar Ba di ministre des sports di maire Fatick. di ci woo honorable député Fara Diène. ndeysaan di ci woo docteur Cheikh di ci woo Amath Diouf. Euh, conseil technique à la présidence. ñëpp di ci woo ñoom may Maykor di ci woo Bamba Sarr suñu suñu frère. suñu frère di ci woo ñëpp. yow daal bàyyiwoo kenn bàyyiwuñu kenn di woo Fatick ñëpp. ba pare bis bi nag dafa am suñuy xarit du ci ànd ñoo xam te seen xarit lañu ku mel ni Modou Gueye héritage <laughs> sa xarit moo ma jàppale nag xam nga xam nga maag yow ña nga xamante ci àngal Modou Gueye wallaay ci jëppal ci jëppal waaw parce que Moussa ñëw baata rek di dem karab karab karab <laughs> <laughs> bu ko jéggi yàlla yàlla yàlla dama jàmm ah, jàpp jàpp bu baax ndaxte woo woo moom moo jëm c'est pas évident ndaxte Fatick suñu dëkk la ñu bëgg mu neex te xam ne autorité ñoo ngi jàpp ci dëkk bi seen wàll jeunesse bi. si côté culture ngeen am association bu tudd Fatick far. waaw ñooy nañ def suñu wàll. waaw pour dëkk bi neex. waaw sur tabaski la le 23 juillet au stade nekk le bal du Sine. le bal du Sine le grand bal du Sine. le grand bal du Sine le grand bal di ci sargal nag suñu frère. Samba Sine waaw. nga ci nga ci woo sa copain Modou Gueye xam naa dana solo ba nga su ba nga daw. lii nii moom raf ma xam loolu ma xam bu weex. bu weex encore. waaw pour ci kon xam nga dama lay dal ak lu lu bële lay dal. non kon du yomb non du yomb. te nag tous les photographes du Sine dañuy ñëw ah. kii ngay gis nii. moom moom laa mës a gis muy photo du Perrier. boo ko laajee mu ne action doo ko bàyyi mu jàng. ni nga koy gis nii dafa souple. Ah, day gis benn action ne kii bu ma Perrier wul daf may raw. Perrier tëpp naa plongé. te ba tey du yàqu. waaw xam nga li war a mooy euh, xam nga photo ñun photographe si laay def. waaw te artiste bu ñuy way mënoo taxaw naa ko artiste kii naaw na ci ay nit sax ñu ne wooy ñu plongé jàppaat appareil bi photo dëgg la wallaay amul wàññil de Youssou Ndour fa na wàññil mais fii yokkal la waaw <laughs> Pape ñu ngi lay gërëm yal na yàlla defal jàmm kon rendez-vous insha na ñëpp ñëw nag na ñëpp ñëw jërëjëf waay Pape sa kër la dafa loo neex doxalal <laughs> mbokk yi Ablaye Wade troisième vague bi lii la ci wax ñu seet Ablaye Wade yeah yeah jërëjëf yéene moo ko kenn nag waaye nit dañ koy utal gaaf mhm. nit dañ koy utal gaaf defe naa ne bi ma fi nekkee président benn yoon la Ebola am ñu xeex ko mu daw ñëwaatul waaye jiite réew première vague yi ñëw ñu ne déedéet waaye deuxième vague yi ñëw ngay dëgër bopp troisième vague di ñëw te boo moytul quatrième dina ñëw yéen moo ko nag waaye li ma ci nekk li ma ci metti mooy euh, ma diggee dafa taxaw ne bu kenn tabaski ji waaw ma diggee moom mooy kan ba ne bu tabaski ji yow nga toog sa kër eh bien lakk say côtelette marem lakkal la say côtelette moutarde nga jël say cure naa di jàpp ne soos nga ne waa Dakar yi bu leen génn dem tabaski di yow ma diggee yaay kan yow léegi loo bëgg tabaski nga xam ne daaw danga nga fàtte daaw da ñoo tëjoon da nga tëjoon gars yi daaw ñoom demuñu daaw ren ñu bëgg a teel a dem nga leen bu leen génn te nga demoon léegi Fuuta Tampaani génn cees nga ne mburu ak soow yaa ngi ñëw léegi nag gars yi bëgg tappitiin nga ne doo ko fi defee yow yow yaay kan Macky daal yow daal yow daal yow daal lenn rek ñooy mun a am danga ne bu kenn génn tabaski ji oto yi nga xam ne ñoo taxaw ci université yi ñuy yeb xale yi sey ministre di leen jox ay bunt ñuy dem ñooñu xanaa da nga leen war a wax ne ñoo ñëw xale yi nag di jaay bu leen neexee ñu génn dem ndax kenn du leen ko tere namanti ko am na waaye doo aaye dara ba pare seen ministre jël ay moyens di ko jox xale yi pour ñu dajaloo ci kii dem mm-hmm. ah c'est politiser les sorties des élèves ba ba étudiants nga toog naan loolu daal ko dem leen korité dem leen tabaski ji ba mu neex boo leen demee nag ngeen def seen distance familial mu mun na am yow mi dem Fuuta toj ko yi ba mu fees <laughs> toj Fuuta toj Thiès yow daal vraiment man maa ki jaaxal na ma démb Karim dafa tëdd di jooy di jooy di jooy di jooy ma ne ko Karim looy jooy mu ne ma papa troisième bi vague bi waruñu ko am wu wuñu ko jikki jékki wax ak man yuuxu ma ne ko Karim bay jooy yi ni nga bëggee Sénégal nii lan moo ko jar yow Sénégal ñoom vraiment yow ni nga man yow yow Karim lan la mu ne déet papa wuya yooyu wooy wooy yooyu yuuxu ma ne papa Karim bàyyi jooy yi lan moo sa problème mu ne non bu sañoon troisième vague bi du am lii lan moo ko indi mën na ko gis nga sa waay ko indi sa moo ko indi ba pare booy bu buñ dem Karim nag nee na moom bëgg na sax wax ak booy yi mën na ko ci lan mu ne dafa buggoon booy yi toog eh bien moom am nañu système Qatar maanaam yow mun nga tabaski te doo doo leen dajaloo parce que Qatar dañu am benn système boo xam ne mun ngaa jël oto fii te doo leen dajaloo am na oto yoo xam ne Karim nee na bés bu ñëwoon teel bu ko teeloon yëg oto yi. bu nit ki toogee ne même bu fekkee ne ki ko am def ko am du ko wàll waaw day am lu dox seen diggante waaw te Karim sax nee na am na solution troisième vague bi nee yooyu yëpp yor naa ko mais xam nga nguur doo ko fekk muy doxal nga koy foqati ba pare Karim daa jooyo jooy jooyo jooy bët yaa ngi néewi Karim ngi jeex tàkk dama ko woo ne ko Karim woo ma appel vidéo mu woo ma ma ne ko kii du yow ma nga mel na yaawu jaal ci ci yàq ma nga jooyo jooyo jooy bañu ma ne ko nag lii nag mooy bëgg sa réew parce que réew boo ko bëggee da nga koy wane moom ma ne ko nag Karim nag moytul ñu jiñ la goroliyaa bi de parce que yow tamit mu ne papa du ma goroliyaa xees naa waaye du ma goroliyaa ma ne ko sax dama doon làmbatu rek mu foofu nag la reetaane <laughs> reetaane waaye nag lii kenn yéenewu ko Macky yéene ko kenn yéene ko Macky parce que Covid la boo xam ne ay bakkan ron na ci wala respect des âmes des disparus moo tax mënuñu ci def loo xam ne dafay dafay ay tappale mais nag lii yëpp nag wax dëgg yàlla euh, mënoon naa ñàkk mënoon naa ñàkk mënoon naa ñàkk ba pare Karim coupé ba pare waat ma di jooyaat ma ne ko looy jooy mu ne ma tabaski bii ndax ñëpp am nañu xar ma ne yi moom mu ngi nii xar yaa ngi noonu xar yaa ngi ah mu ah, léegi nag mu ma papa yónnee naa ay xar ma ne ko kañ la xar di ñëw mu ne ma dafa am bato express boo xam ne bu départ Qatar 7 heures 8 dina ko fekk Dakar léegi nag ñi amul xar yëpp bu ñu indee carte Karim ñu jox leen ay xar ci siège ba ba pare ma ne ko waa léegi ñu amul carte Karim nag mu ne kon nañ jox ñëpp rek léegi nag indi na 16 million mouton pour Sénégal bu ne benn mouton ma ne ko noo koy séddalee mu ne par hélicoptère kër gu nekk dañ fay wàcc xar te te doo doo dem di buuxante waaw loolu daal la Karim wax démb tamit jooyaan na ci guddi gi ma ne ko looy jooy mu ne ma normalement la 20 dañu waroon fay salaire yi ma ko ah mu ne ma bu fekkoon man la le 20 damay fay salaire parce que nee na tabaski fête la boo xam ne ñaari yoon la nit yi war a fayeeku ma ne ko loolu Karim bu ko déggoon ba defal ko waa TFM moom nag TFM ñu bëri dañ may woo di ma ñaan xar <laughs> ne mooy Serigne falu Mbacké transitaire sama waa ji xam naa lii may def nii sax gënalu ko waaye nit ku baax nga nii euh, Serigne Fallou Mbacké transitaire sama diggante ak moom du teraanga xame bu yàgg la ca HLM ñu dénk ko nag jigéen ju baax dénk ko jigéen joo xam ne tamit ku mun a muñ dénk jigéen joo xam ne wax dëgg yàlla na muy tarbiyoo boroom këram dama ko tuddee sax soxna jaara ndax Serigne Fallou Mbacké transitaire nit ku yàlla baaxal la sëñ Fallou Mbacke transitaire du du xew-xew a tax ma koy gërëm moo buggul ku ko gërëm ci lu mu deful nee ma ku Kouthia kenn bu ma bu ma kenn propagandal waaye nit ku teye ngi nii kuy def ci social koo xam ne ay yam dañ koo gërëm te paregul ak ñoom keroog bu ñu joxe ay kër employé mën nañu woo ma téye microcentral bi dama dem ba benn instant sama rongoñ tuuru mu ne ma soxla moon lii dama la jox pour nga présenter ku baax ngi noonu kuy def te yàlla tax koo xam ne wax dëgg yàlla da ngay liggéey ci moom yàkkamte retraité <laughs> xam nga lu tax parce que boo retraité teraanga ba mu lay jox ci boppam da nga naan lii est-ce que dëgg la du bàyyi kenn di taxawaalu ci ci njabootam ci ñi nga xam ne ñoom kenn ku nekk xotti na la tere tabaxal la kër jox la ba pare dugal fa ay bagages kii kii yal na ko yàlla defal jàmm nit ku baax ngi nii te yaatu ginnaaw nag koo wax ci ku baax ci dëkk bi suñ Fallou Mbacke transfert xam na la boo bonee du xam yal na yàlla defal jàmm Mbacke balaay sa ba pare nag moderne <laughs> sëñ Fallou Mbacke transfert moderne <laughs> boo ko gisee ci bërëb bu muy liggéeyee bu ñu ne la Mbacke Mbacke la da nga naan déedéet waaw man nga ca génn dugg ma nga ca génn ñàq ba ma nga ca génn dugg ma nga ca génn dugg ma ca génn dugg boo ñëwee ñu ne sëñ Fallou Mbacke ñu ne ñu ma nga nee nga ne déedéet moom laay xaar yaa ngi xaar nag koo xam ne la waaye dafa simple xaritu sëñ Abo yal na yàlla defal jàmm sëñ Fallou Mbacke transfert sama xarit ju baax yàlla na yàlla defal fan bu gudd ba pare nag ah, ah, jamin këram ga nga xam ne moom moom moom la am foofu noonu ci Touba daf ma daf ma daf ma fa tuddee néeg néegu bi Bilal waaw waaw néegu Abou daal dafa baax <laughs> sëñ Mbacke soo gisee ma def témoignage mi nag pour fàttali ko fàttali bi mooy sama diggante ak moom newoon na ma Abou Bilal <laughs> sa tabaski bu soobee yàlla dana neex li ne ci bopp bi mooy bëri yu mel nii ngay mën a am pour di ko wax <laughs> même boo ko waxul sax dana ko def waaye pour fàttali ko soxnaam nag maa féet ak moom soxnaam moom moom moom moom laa ndeylee sama bopp moom laa bàyyilee sama bopp waaw waaw laa bàyyilee sama bopp am na nag benn euh, euh, journaliste euh, buy reporter làmb fii ci kër gi boo xam ne tuddee na ko doom mais ko day njëkkante waaw sëñ Fallou maa maa ko maa ko njëkk dig doom waaw am beneen animateur boo xam ne ci làmb ji la nekk fii te nekk ci làmb ji xam nga ki may wax bëgg près du corps njëkkante ak man waaw njëkkante man na jabar ji gaawal gaawal gaawal gaawal balaa ko jaxate ku tuddee doom njëkkante <laughs> walaay njëkkante njëkkante li njëkkante tuddee ay doom ma ne ko mbir mi du foofu de waaw njëkkante lay njëkkante a yàlla baax na xam ñun ne ay mag nañu on essaie de faire aller rek waaye xam <laughs> grâce au jingeer <laughs> léegi nag mbokk Youssou Ndour de wax dëgg yàlla diggante <laughs> diggante diggante démb ak tey diggante démb ak tey wax dëgg yàlla Youssou Ndour yëngale réew mi waaw Youssou Ndour daal wayam bii daal ah indi na coow léegi nag expert musical mooy ñëw wax ñu cool yi ñu naan Youssou Ndour kan lay wayal kan lay waxal mais Youssou Ndour kan lay waxal ak kan lay wayal loolu mooy lan nañu dem xooli expert mu wax ñu way bi lan lay tekki ñu seeti euh, expert. jërëjëf Youssou Ndour daf ñoo tàmbal ñaar bu événement amee mu génne loo xam ne bu ko woyee réew mi ñëpp di ci waxtaan loolu lañuy wax événement événementiel mooy déclic way bu indiwul coow indiwul werante du way nit way na lu am riis te waxu ci li tax nit ñi dégg ko Youssou Ndour tey boo koy xool ci way boo koy méngale da ngay mën naan Messi la wala Ronaldinho wara nga ci génération bi Sadio Mané la parce que lu mu laal rek boo xoolee ci cappaandoo ba ku ko paas ca biir la jëm yu su tollatul foo xam ne dafay gaar gaaruwaale déedéet dépassé na loolu dafay jàngale te kenn ku nekk boo wéete sa bopp xam na ne wax ji yaa moom waxul ak kenn nag ñëpp lay waxal wàññi ko looy wàññi wax ju bëri ji wàññi ko looy wàññi tiitaru bi ak réeréeru bi looy wàññi maa mën maa def lii waaw boo ko waxee ba pare te amul sens nag mooy ñiy propagandal nit te loolu amul ci ñoom ci biir wooy ba mu nga naan eh tasal nag ki nga xam ne moom mooy roi des arènes ba ko tasante ak moom da koo xëcc yëkkati ko yow kay boo dee tasante ak roi des arènes ba xëcc yëkkati ko kay kon yow yaa mën roi des arènes foofu Youssou Ndour nga xam ne nit dina wax loo xam ne sax ki koy dégg day xam ne du dëgg waaye ci biir wonewu wooy bi nag da ko da ko kakatar te ko kàkkatar kàkkatar lu mu yëg nuróog moom woyoon na fi moor ndaje dafa indiwaat moor ndaje réactualiser ko ak situation bi nga xam ne réew mi fa la toll maanaam nit buy wax na wax loo xam ne xel mën na koo dégg fake news fa la Youssou di waxee am naa bato yéeg naa avion Israël maa leen jaar matériel ba bombe atomique buñ buy def lii corona bi temps de moo rey am lii yëpp mooy ñuy wax tey wax joo xam ne teguñu ko na te ko dégg xam ne yenul maanaa ñu ne wàññil <laughs> la waaja waxoon rek ca ato ba nen ya camion nen <laughs> la la ca waxoon camion nen daanu benn tojul xam nga boo ko déggee danga nga naan kii mooy jàmbaar fekk ay waxi neen la mu ne wàññil bopp soo na camion nen bi daanu na genn wàll gi toj ñoo xam ne yenu na maana mm. yuusufa lay waxe gaa yi wax bii nag képp ku nekk ci àddina gis nga ci sa bopp homme culture bi religion bi sportif bi politicien bi Youssou Ndour lancé wul message kenn doigté le bras amula kenn xaar ma yàlla pour wax ne eh yow laay waxal lii mu way nii mu ngi ci kër yëpp mu ngi ci monde yëpp ma nga tribunal ma nga assemblée ma ngi ca politicien ma ngi ca kër yëpp ma nga ca kër yëpp da ngay gis ku ñëw fëgg dënam amul ko fi taxaw ne ba dina xar géej gi incha kooku bu wàññiwul du du du du du way wi bu ko déggee dana wàññi maanaam wax loo xam ne ñëpp xaar xam ne ne mënoo ko waaye ña ngay xaar pour tiiña la amul saas wàññit soo wàññee nag ñu ne ndax mën na am war a mun am mais loo xam ne boo ko waxee ñu xam ne amul am naa bateau am naa avion Israël bu ñu geeru maa tax maa def lii maa mënale maa defoon lii mooy moor ndaje rek moor ndaje mooy jëmm ji nga xam ne foo ne fem fekk ko fa waaye wax ji mooy wàññil coow li wax joo xam ne loo wax ne mën nga ko moor ndaje nag ndaje bu am da ko fay fekk xew jàmm dëj màggal gàmm soirée anniversaire foo dem fekk fa moor mais lu tax tuddee ko moor ndaje remix déedéet dafa génn kàddu wàññil yokk bi dafa bëri dangay def tuuti ñu def ñu réel ko dangay mën tuuti ne mën naa lu ëpp loolu te bu jëf joxee nga daw suñ la laajee nga ne dama amoon gàllankoor ku ne Youssou Ndour dafa am ku muy waxal yaa ngi koy tooñ Youssou Ndour tollatul foo xam ne day gaar waale ndax bu dee doole am na ko gis nañ ko nii rek mais xeexu Youssou Ndour fekke naa ko waaw dama leen ko xamal yu luy wàññi Youssou Ndour fekke naa ko ay xeexam mën naa téye quatre personnes dóor leen ci une minute ni koy gisee noonu bu bañ a wax te du tontu noonu la gaawee xeex. mais dafa am maîtrise fekk naa Youssou Ndour di xeex ak benn waay joo xam ne Youssou dafa tëgg soirée ba pare am bénéfice cent mille francs waa ji waroon ko fay cinquante mille mu fay Youssou Ndour dix mille waaye bis bu ko Youssou mbéjee waa ji dafa dem jël seen kayitu kër jox ko dafa jël seen kayitu kër jox ko Youssou waaw deuxièmement Youssou Ndour ñu bëri dañ koy gis nii rek mais dafa am métier wàññi ko mais Youssou non non xaaral ma ñëw balaa ngeen wàññi xaaral ma ñëw Youssou Ndour dafa am métier ah. dafa da ngeen gis Youssou Ndour ci benn université mu jàng fa mais avant muy woy nii dafa am métier gis ngeen Youssou Ndour dawal scooter gis ngeen ko ci benn clip engin moo dee ci xolam moteur lay bañ a dégg moo tax kenn mënu koo nax ci oto ak engin defar gàttu engin gis nga booy ni nekkoon ca ca ma ñëw moteur bu daw Youssou Ndour xam na ko scooter yii ngay gis nii lu tax moom du ko xool du tiit jour bi ñu tuddee kii ko Youssou mbaa booy doon loué vélo boo ñëwee ba corniche bi ci kaw Youssou ci booy la njëkkoon nekk defarkatu engin bu mag mooy Youssou Ndour mooy métier de préférence ba pare mécanicien tôlier la amul dara lu ko réer ci oto day dem ci mécanicien sa mécanicien naa ko non Youssou oto bi il faut fekk xam na lépp mais day bàyyi ci biir. beneen secret boo leen xam Youssou Ndour ñu bëri xamuñu ne euh, docteur la waaw waaw docteur la daf ko jàngate wanewu ko Youssou Ndour jóge na fii faj nit koo xam ne dafa nekkoon dans le coma Youssou Ndour faj ko ba kooku judduwaat nit dem na bay dugg génn àddina Youssou Nduur faj ko mu dë dë dëppaat pare loo leen xamul yéen pour Youssou Ndour TFM rek la moom télé yu bëri ngi si réew mi Youssou ko moom. looy la am na ay télé yu di wax rek fekk yooyu yëpp Youssou Ndour ko moom. RTS bi ngeen di dégg nga équipe bi nga xam ne mooy Real Madrid ak Barça Youssou Ndour moom moom Real Madrid eh, est-ce que xam nga Nelson Mandela Nelson Mandela ak Youssou Ndour. wàññi ko ak Youssou Ndour fanaan nañ prison benn jour. wàññil espère wàññil. est-ce que xam nga ne affaire te xam nañ ko. Ah. Youssou Ndour fanaan na pare 40 jours te ñii kenn kenn xamu guerre bi waroon am diggante Iran ak Irak Youssou Ndour tax guerre bi amul benn bombe la defar bëgg ko jaay ñaari dëkk yi kenn ku nekk na maa koy jënd Youssou Ndour xàcc. ko wàññi ko wàññi ko na. fii nag laay daanalee est-ce que xam ngeen ni Youssou dëgg-dëgg xamewu leen ko ci jamono yonent yi moo nekkoon nga xam ne ñoo doon ànd ak Ibra TV. Euh, la euh, la télé du buzz moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal kenn dalu jàmm di ko ñaanal tamit euh, kenn bu ànd ak jàmm ak tamit yàlla dafa ko jàmm ci li nga xam ne ci la yëngu waaye mbokk yi ñu ànd ak ba tey dina xam ne ki nekk ci réalisation ba El Hadj Malick Ndiaye la feggoo ki nga xam ne moom mooy El Hadj Daaro Gueye benn jëmm ñaari caméra soxna Seyda Mariama Ndiaye yéena ko yàlla defal jàmm tonton Pierre ñu koy gërëm ci li nga xam ne mooy jàppandi bi ci suñu ay dem ak dikk jàpp ci li nga xam ne moom la ñuy solo King ananas King orange King Euh, kola king citron bi daal wax dëgg yàlla booy lekk di digérer ci tabaski bi daal moo ko tax a jóg et puis tabaski bi euh, nañ koy naan waaw parce que digérer dafa baax tey xool xale yi nag nañuy xool xale yi ci ndawal gi bu ñu leen bàyyi ak ndawal yi tey paaka yi bu ñu paree ci paaka yi yëpp nañ ko téye tënk ko dent ko place boo xam ne xale du ko gis paaka du fanaan ci wàññ yooyu yëpp ay affaire yoo xam ne après tabaski nañu téye paaka yi tënk ko tënk wala ñu gas ko suul ko dafa ci baax aada la dañ ko war a gas ba mu xóot suul ko paaka tabaski dañ koy gas ba mu xóot suul ko kenn du ko dent ci waañ am na yoo xam ne kenn du ko dent parce que dëkk bi dafa neexatul waaw nit da ngay gis xale bu génn mer jàppante ki dem seen waañ rek buddi paaka dem bu fa dee demoon fekkul paaka du am kon nañuy jël paaka yi di ko dent wala ñu koy gas di ko suul waaw gas suul parce que yëpp ci euh, aar suñu bopp la bokk waaye ñaan ñëpp jàmm yàlla dafa leen jàmm may ñu fan mu gën a gudd yaram mbokk yi ñu seeti Souleymane Ndiaye DG aéroport yi moom lan la am ne ne am na lu bees lu yees loo xam ne xale yi nañu wax alhamdulilah ñu seeti DG. jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu waa Goudomp waa Ziguinchor waa Gounass ak fépp euh, dem nañ ba moomatuñ suñu bopp euh, coowlu Gounass euh, Goudomp bi bi waa Goudomp waxee ne damay nekk maire ndax falaa juddoo falaa cosaanoo waa Ziguinchor siisu àtte bi ñoo la nag man ndeyu mbili ji incha allah rabbi li waa Goudomp bëgg dana am la waa Ziguinchor bëgg dana am benn jëmm nag mënul nekk ci ñaari gox waaye di ngeen gis benn jëmm ci ñaari gox li ñuy def nii yëpp pour jox président Macky Sall li mu bëgg te am sas bi nga xam ne moom la am ci ñun àdduna bi dafa nekk àdduna boo xam ne dafa moderne li ñu jox nii ku ne ak nga ci euh, gis naa population yi ak mouvement bi nga xam ne laa yor fi mu tasaaroo ci àdduna ak kenn ku nekk jàpp bi nga xam ne yaa ngi ko ci jàpp loolu mooy wane ne woote wuñu ngir caaxaan massification parti bi ak li nga xam ne moom la parti bi bëgg ñun buñ ko dafee teg ko ci loxo président Macky Sall dina xam ne ñun duñ ay alliés yoo xam ne dañuy topp nii rek te amuñu dara dama ne Casamance président Macky Sall fu mu bëgg teg tànkam moom ko mu am mairie boo xam ne couleur APR la ànd ci ñun jàpp ne loolu am na parce que jëf nañ ko fa am nañ ko fa wane nañ ko fa. ndax li tax ñu def loolu mooy dañoo wane nit ñi gis tegal seen bopp. lii euh, jëm nag ci ay bés yoo xam ne bésu solidarité la te nit ku nekk nag wax dëgg yàlla amoo lu say mbokk ak say militants ñu xam ne ne li ñu président Macky Sall dénk ñu ngi ci projet yi te bés bu ñu ko koy delloo ba mu wóor ne li mu ñu joxoon daj na bu keroogee ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay militants si sama parti militants yi doo leen am gàcc mukk ndax li ñu war a def ñu ngi koy def à la place fi ñu ko war a defee. waaye tamit nañ jàpp waa Goudomp bëgg nañ ma kon maire <laughs> c'est normal waa Ziguinchor bëgg nañ ma kon maire <laughs> waa Dakar bëgg nañ ma kon maire comme loolu sant yàlla la foo dem ñu lay xëccoo c'est parce que la ngay jëf moo nekk lu leer et bu soobee yàlla Goudomp tànn nañ ma Ziguinchor mooy xëccoo lu musul ab ngeen di gis benn jëmm ci ñaari gox munoo nekk maire Dakar nekk maire Thiès waaye nag dama ne benn jëmm ci ñaari gox Euh, politique sociale bi ñuy def nag mooy jàppale président Macky Sall ci li nga xam ne moom moom la war a def parce que du fu nekk fu nekk la mën a dem ñun nag ñi nga xam ne dañoo ànd ak moom di liggéey fépp foo xam ne daf ko waroon matériel te matériel ko dinañ fa jéem a jàppale socialement le président de la république parce que ñëpp xam nañ ne euh, événement bu ñëwee kenn ku nekk bëgg nga sagal sa bopp sagal sa njaboot ñun luñ ci mën nag dinañ ko ci def. defuñu ko nag parce que dañuy ut euh, massification wala dañuy ut propagande dañ ko def parce que suñu wareef la avant ñu allié ak président dañ ko doon def kon bu ñu allié ak président tamit dañuy continuer di ko def kon na xel yi dal te xam ne brochette yi di ngeen ko lekk xar yi dina ñëw soble yeeg pombiteer dina ñëw sama mbokk njóobeen yi ak sama mbokk yi xam ne ñoo nekk euh, sant Diop samay kal bu soobee yàlla incha allah na seen xel dal ndax ñun dañoo ñëw pour prouver que le Sall du ay parti bu ndaw boo xam ne dañuy topp ci dara te amul dara ñun ku topp ci ñun war ñu ànd ak yow c'est parce que dañ lay won nga gis Casamance nag ñooñu ma bëgg waaye ni ma Casamance bëggee noonu la ma dakaar bëggee gudumpu mbaalen kanto ne kono gudumpulu mbanna kanto ne ko gudumpulu mbalankaye ndanga ka bu ko bulunkulu sungone kana ko bulunkulu gudumpoto gudumputa mane tampinana ko gudumpu baale oh. gudumpu baale na gudum buɓaaleena bulum kuɗaaleena doorinaate bon toole ceerno won mon ɓa toole baa moone yakkaar reet tamsa baane gudum bono poole maane yakkaari jamani baane jamani baɗogo wono baama jabari kinkooni dooriyaana doomi kenta papa karini baala gundum dànka ci suba moo taxit mbokk yi débat bi tëj li nga xam ne mooy débat bi mooy seeti Omar Reew ak Yaay Faalu Macky Sall Yaay Faalu Marème ci débat boobu salaamaaleykum maaleykum salaam ah. suma lunette <laughs> nekk mbokk xarit yi dal leen a jàmm ci seen uh, bàyyi mu néew askan wi may seetaan mbokki xarit yi di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar ba tey ma amati mbégteeg bànneex jàkkaarloo yéen ci sama biir émission bu mag bi nga xam ne saa su nekk nee naa leen fii lay leere ma am fi nag ñaari gan yoo xam ne kenn dootu leen présenté ci Sénégal mooy ki nga xamante ne mooy Yaay Fall Macky Sall am ki nga xamante ne bii mooy Omar Réew Yaay Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax soxna Mati maa ngi nuyu Sénégal ak àddina li ko wër. di nuyu waa diaspora bi. maa ngi jiital si nuyoo bi nag son excellence monsieur le président Macky Sall. di ci teg madame la première dame. di nuyu sama xarit sama soppe boobu nga xamante ne mooy Awa Ndiaye borom Espagne ki nga xamante ne dafa ñëw Sénégal defal ma teraanga bu rëy teraanga bu ñu la ko defalee da nga koy dafa ñëw Sénégal defal ma teraanga bu rëy ah, jox ma ah, tissu jox ma saak jox ma xaalis bu baree baree bari ah, Awa Ndiaye teraanga bi bari na merci beaucoup kontaan naa vraiment yaa sa borom kër bu baax boobu maa ngi lay nuyu di nuyu waat rek euh, ki nga xamante ne mooy madame Thiaw Laye madame Abdoulaye Diouf Sarr waaw borom boroom social bi yi nga xam ni day def don di def social di def lu baax ci dëkk bi di jàppale jëkkëram waaw maa ngi nuyu ñëpp. woyaan rek yow. Omar Rew. waaw nuyul est-ce que askan bi lay seetaan. Eh, maa ngi nuyu. maa ngi nuyu ñu réew ñi. di nuyu ñu kaamat yi di nuyu xeexkat yi di nuyu ñi kam ne ay réewandi daal moo leen nekk. ñi yaru ñi sama yoon nekkul ci ñoom sama fou de tout le monde. Omar. may nuyu ñëpp ñu réew. ñu yaru dañ lay seet. sama yoon nekku ci loolu danga may laaj ak wax nuyu naa ñu ma war a nuyu ba pare jeeg la kay yow loolu li jëm ci loolu yow. tey comme ni ñu koy waxee saa su nekk ba ndax tey ci li nga xamante ne bi mooy tabaski ci wàllu xar buñ nee xar kenn la cee ñàkk tudd parce que yaay président des éleveurs euh, ñu gis ne xar yi ba tey. mi ngi continuer di cher. xar yan. xar yi ba tey mi ngi continuer di cher. Hmm. ba pare euh, ñu def ñu ko constaté benn affaire que ne xaru coggal yi ñëw instant bi moo gën a bëri ci dëkk bi comme ñi nga xamante ne bii nii dañuy génnee xaru yar yi xaru yar yi fi mu nekk jeex nañu mais xaru coggal yi nga xamante ne sa mbokk éleveurs yi ñoo ko indi ba tey foo turne mi ngi fees dell te wàññeeguñu prix bi ba tey. en tant que yàlla xar yi jeex na xar coggal yi kay ñoo nit boo waxee ñu ne suñu kar yi dafay lekk lii lekk coggal moo gën a neex moo gën a sakkan bu ñu kenn rey boo amee kar cent cinquante milliards nga dem coggal am kar soixante quinze mille da ngay am ñaari kar am huit tànk mhm. am ñaari bopp ñaari foie am ñaari mbaq kar daal da ngay kool fu mu yombee mhm. deret deret rek kese la maa yuur sax deret deret kese la kar kar kese la ki kar ki rey un million ak rëy xar cinquante boo lakkee bi keeñ bee keeñ ñoom keeñ keeñ la rek xar bu un million bi ak boobu benn rek la am mais kar daal lamb na kar lamb na parce que dafa lamb la mais na Omar yére bu weex laa sol yaay Fall comme ni ma la ko comme ni ma ko waxee Omar rek waxoon nga xar dina bëri gis nañ ne xar bari na waaye ba tey xar yi ñu ngi laxas euh, li nga xamante ne bii mooy jaan mooy jaan taxi yi moo cher moo tax xar yi cher parce que gars yi ñoom ñëpp loolu la ñuy jàmbat que ne xar am na mais xar yi ba tey mi di cher non vraiment nag xar cherul cher na yaay toogoon naa fii wax leen fi ne leen xar dina bari mhm. parce que président wax ak naag ministre bi Ali Sare euh, indi na lépp li nga xamante ne Euh, fépp fi nga xamante ne xaru euh, nekk na fa jënd na ko. ba indi ko wàññi nag tax si léegi lépp. tak xar moom instant bi cher li ma la waxoon de xam nga newoon naa leen. bëri na yaay faal mais nañu taxaw foofu cher na ba xar bëri na gaa mais xar yi dafa cher. non ñi ñi cheral seen i xar. Mhm. mooy ñi nga xamante ne mooy éleveurs yi. Mhm. waaye coggal yi ñëw. Mhm. yi nga xam ne moom la ministre bi indi. xar yi cheru xaru gouvernement benn xar cheru fi. yëpp a yomb. ah gars yi dañu koy jàmbat. xar seerul xañ mooy éleveur yi nag ñoo seeral xar yi. yow eh, eh, eh, sa bant boobu na ko téye fekkuma ak yow ay meew dégg nga li ma la wax. très bien. da ma neex. falaa yam nag. Omar. Mhm. say xar yow jeex na wala jeexul. kaar yëpp jeex na. xam nga lu ma indi ci plateau bi. waaw remercier ñëpp. Mhm. gërëm ñëpp sant ñëpp. Mhm. sama kaar jeex na. am naa kaalis. tey laay def réewande bu gën a neex tey. damay def réewandi boo xam ne sama anniversaire tey waaw tey la sama anniversaire tey man dama judd rek réew dama judd rek ma wala docteur bi e eh, kam <laughs> docteur bi laa jëkk saaga moom laa jëkk saaga tey suma anniversaire réew man de la ma tubli la boo ma respecté eh, am nga kar Pata dafa mel ne amul kar de Pata am nga kar mu ne nemm toog yow Macky Sall faale wu la de. kii di nga ko gis di laajte ndax am na xar wala amul xar laaj ko. ay Pata en tant que yaay faal Macky Sall. kii Pata yi layam layam ba ni Pata dañ ko fàtte Pata am naa numéro Macky ma boo ma wax la Pata Pata amul kar. yaay faal amul kar Pata. loolu de man mënuma koo gëm. Hmm. nee na amoo xar. am naa kaalis man. mosuma ànd ak moom de waaye tey mu ànd naa. ah <laughs> lu ma la waxoon. pata amul kat. aw ak ni mu sonnee ci Macky Sall kaas ni toog di wax yëpp mais nag bu ñu amul xar yaa ko war a jox xar ndaxte yow ku nekk xam na ne mbirum xar. déedéet Macky Sall kii def ko war a dimbali. kii da koy xeex ci plateau yi day dóoraate man li ma nekk mooy li mu reew rek uh-huh. mais billaay kii di mu daj uh-huh. Macky Sall guddi ba ca jëkkëram ñëpp fu mu romb ñu ne ko yéen ndekete Macky ngeen faral uh-huh. loolu nit bu sonnee ci yow da ngay lijjanti numéro ngeen woo ko kii dafa sonn chaque jour mu ngi kuloo mu ngi keek man kam lu tax mu nekk ma li mu réew rek moo tax mais kii war na ko jox xar waaw mais war na ko jox xar mais Omar yow mi nga xamante bi bii depuis tabaski tey yéen ñaar laay boole seen plateau nga xamante des fois tamit ngeen juboo war nga ko mën a jox tamit li nga xamante ne bii mooy xar. mais yéen a ko leen di tudd waaye mosu leen gis. ku leen gis de. ah ñoom tamit li ñu bee def nii baaxul di ak ni ngay sonnee ci dóor nit ñi. gisoo ko de keeg keeg keeg keeg moo tax danga waroon bàyyi. xeex ba feebar fi mu ne. na ci yow bàyyi faalu sa jëkkër moo gën nga ah, jëkkër. man de yaay faal tamit day nekk bàyyi ah, faal. damaa xeex ba feebar de. yaay faal la def baax na. damaa xeex ba feebar. yaa ko def pataa. <laughs> kon léegi. waa yaay faal Macky Sall laa tudd ah. bu ma waxaat pataa. Omar pour jeexal li nga xamante ne bii rek mooy suñu débat kon yow fi nekk nii pare nga say xar jeex na jël nga sa xaalis yaa ngi dem daara Jolof julli maa daara jool am ma may la bii merci nga koy takk dégg ah, maa ngi dem daara jolof am naa kaalis li yëpp kaalis la mhm. pata comme que nag yow da nga sa décision bopp mhm. ak sa yoonu bopp ma lay dimbali nga may jaay réewande loolu moo tax nga neeg ma yow tamit maa ngi lay ñaan mhm. suñu ànd bii nga may jalal ma lay def lu la nakkari yal na la yàlla defal jàmm amiin parce que yow sa yaru bii laa bëggoon nga bàyyi da lay doo avancé de gisoo télé yi ñu réew rek ñooy siiw télé yi da ngay pour nga am am bees il faut nga réew de waaye yar loolu la mayu réew da du la ko may waaw lii day yàq sa émission bi waaw merci lu la ko may de ah man de réewande ma am alal banque yi sax dañu may wër ma leen wax kam man dama réew man ci réew laa sant yàlla waaw yow yaa ngi nii yaru amoo tus <laughs> amoo amoo dara. waaye ah, xanaa tey moom war ngeen a mën a joxante loxo yéen ñaar baalonte ak ndax depuis boobu ba léegi yéen a ngi koy bombante ci plateau bi yow moom war nga maa ni nga ko defee noonu alhamdulilah. moom mii dama war a baalu ak. eh man kam nga kii daf ma neex. Mhm. yow te yow laa a baalu ak ndax lu ma leen def ci àddina rek yaa ngi ko muñ. Mhm. yow sa nekkin ci télé. boo yaroo doo avancé télé da ngay réew da ngay def kon animatrice yi nga xam ne dañu réew te yow dama bëgg daal nga jàppale kii tamit parce que moom mu ngi jàppale makki Sall te moom munu munu am dara ci Macky Macky jàppaleel kii mu ngi rey sa bopp ci yow te munul am dara kii moom nit dañ koy tooñ sax naan ko yow bàyyi faalu Macky te munu am dara da ngay doog boo ñëw fii tubaab bi ngay buukante buñ la reyee ndax Macky Sall lan moo ko jël. te xàmmee nañ ko tamit. doo def comme ah, journaliste boobu ñu laajoon loo kam si seen télé bi mu ne sama yoon nekku si kee moo ma fayal moo tax moom lay faral <laughs> am na ku ko defal. ma génn ku la ñu ma puuta oma réew sama bos réewande laay jokkool kontaan naa sama réewande wakam laa dëkk ngor laa juddoo boy kara dama réew dama réewande kaala ma dema jokko sama jabar bi mu def gere faas bi mu duggeeg noonu dëkk ba ey yow li ne dafa amul amul saas door naa la ba pare oo oh, ma réew